wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin abdullah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh euh, mbokk yi bàyyi xel Salam Vision ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel di leen ñaanal yàlla tawfiixu àddina ak laaxira ci barke yonent bi alayhi salaam di jiital ci mooy bi xalifa seen roya ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara waaye di su jiital sunu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mansour ñaanal ko yàlla guddal fanam bay ko wér ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa def ñaanal ko njabootu Cheikh Seydi El Hadji Malick yépp ñaanal ko Papa Maodo Sy ñaanal ko Serigne Mbaye Sy Abdou ñaanal ko njabootu Serigne Babacar ñaanal ko mboolem ko xam ne njabootu Cheikh Seydi El Hadji Malick nga rek yàlla sàmm la ci barke yonent bi alayhi salaatu wa noonu lañu def dem ba tiwa Tuuba fekk fa sunu maam Sëriñ Muntaxa Mbàkke ziyaar ko ñaanal ko yàlla fan nga gudd lool ba ànd ak wér ci alayhi salaatu wasalaam ak njabootu Sëriñ Tuuba bi yépp dem ba Kaolack fekk fa Sëriñ Ahmed Ndiaye njabootam muy Sëriñ Habib ñaanal ko yàlla ziyaar ko dokk wàcc waaye yàlla sàmm ko ci barke Sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam dem ba Léona fekk fa Sëriñ Ahmed Tidiane Niass ziar ko dem ba Medina Baye fekk fa Sëriñ Cheikh Mahi Niass Mahamadul Mahi ziar ko ñaanal ko mu tuuti fan mu gudd lool ba ànd ak wér ak mboolem xalifa généraux Taaleen Njaasaan Canaba Yoof fépp tabaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ziara ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew di leen ziara bu baax di leen ñaanal jàmm biir ak biti ci barke yonent bi alayhi salaam ngeen fas yéene ànd seen xarit Oustaz Mouhamed Ndiaye soppe Sidna Mouhamed alayhi salaam fas yéene la waxal ci rasulillahi tey nag ngi fas yéene ànd ak yow ci sëy nga xam ne sëyug Sidna xam ne moom la ñu may Abdullahi sayyidatuna Aïcha sayyidatuna Fa sayyidatuna Amina maa ngeen yow danga war a wax mooy bés ba ñu may ki nga xam ne mooy Abdullahi Amina te mi nga xam ne mooy yaayu rasulillahi ak kañ la ñu ëmb Seydina Muhammad ak kañ la ñu nàmpal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak li nga xam ne moo ayitu loolu yëpp incha allah dina ko waxtaanee. wa Abdul Muttalib min baadu marra ila fatatin zuhrata zaati almajdi walkarami sa maam Cheikh Seydi El Hadji Malick nee na wa abdu mutalibin waa ji ñaan abdu mutalib min baaro gannaaw ba nga xam ne marra weesu na illaa fattaatin ci la demee ne illaa loolu mooy la bi nga xamee ne abdullahi rayal nañ ko san gëlëm yooya bés ba mu weesoo ca abdullahi abdu mutalib di pàppam téye ko na doom kan dem wutal la soxna ndax doom soxna jot na ndax yonent yàlla yooyu sidna mooy abdullahi ba nga xamee ne njot ga weesu na inil qidaa ala mahbubikum xarajat siidu fa siidu duuna ma salami inil qidaa ala mahbubikum xarajat siidu fa siidu duuna ma salami loolu mooy lan Abdullahi bi nga xamee ne Abdul Mutalib ni seer na dafa ko yàlla may fukki doom dana rey kenn ki jaamu ko yàlla yàlla may ko fukki doom yi mu doon yëpp mu gént ñu ne ko da nga def ko muy gént gént lu dox daf lu ba ci ñetteel yoon balaa xam ne nag liñ ko wax dëgg la ci la jël ay doomam wantale leen ne danañu rey ba mu wantalee doom ya ne danañu rey bul dee ba mu nga dal Abdullahi ci la téye Abdullahi la ko téye ko ci loxoom. pour war a dem diggante Isaaf ak Naay pour rey Abdullahi te Abdullahi moomu moo war a jur rasulillahi Abdullahi moomu moo ñu war a indil sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa te buñ ko buñ ko rey boobaa yonent bi alayhi salaam bu ñëw te boobaa àddina jaaree fa yàqu boobaa àddina jaaree fa dukki ah Abdullahi Abdul Mutalib bi bàyyam téye ko ci loxoom. war a dem diggante Isaaf ak Naayil pour rey fa Abdullahi mbokk yi ba yégee la Abdullahi ni Abdu Mutalib daf koo bëgg a rey ngir ni seet ga mu ngi seeroon ñoom ñëpp dañoo daw song Abdu Mutalib na ko Abdu Mutalib lii moom du fi am sama sa maam Seex Sidi Haaji Maalik wax na ko xaaluhu xaaluhu laa taf'al izaa ghadan kay laa yuraa aadatu fii fiihi lam turami xaaluhu wax na ko xaaluhu way bañam ya de laa taf'al izaa abadan Abdu Mutalib lii nga bëgg a def def rey Abdullahi moom du am ndax boo ko reyee ku ñu ci xorasi da nga ray sa doom wala ku fi am fukki doom da nga ray sa doom jaamoo ko yàlla te loolu duñ ko def ku fi niséerati li ngay def mooy raaj sa doom déedéet loolu moom duñ ko def nam diili Xaybar ne nu dem Xaybar ndax am na ku fa nekk benn gisaankat bu jigéen bu ñu yeggee danañ jox sélection ñu xam nan la ñuy def ba Abdullahi lu ci la gaa yi nag d'accord ci la xamante ne d'accord ci lañ dem Xaybar jigéen na dane waaw yéen bi ngeen ñu séeroon ñaata maanaam li ngeen doxalee ñu wax ko mën a leen dem leen ngeen génne cent gëlëm teg su ngeen teg Abdullahi teg cent benn gëlëm ba ngeen wantelee bu lu dee bi dal gëlëm gi rey leen gëlëm gi xam na yàlla na mu ci kii ba ngeen wantelee bu lu dee bi yëngal mu dee mu dal Abdullahi da ngeen a yokk dix par dix dix par dix ba mu mat cent bu matee cent nag mu dal Abdoulaye da ngeen xam ne yàlla na mu ci Abdoulaye dund ngeen rey waaye bu matee cent mu dal gëlëm yi da xam ne yàlla mu ca na Abdoulaye ngeen rey gëlëm yi ci la dem ci leen dem Màkka teg dix gëlëm teg Abdoulaye di wantale bu nu dee dal Abdoulaye di ko wantale bu nu dee bi dal Abdoulaye ba mu des mooy dix manqué ko cent la ak mu ñu jëlaat yeneen cent teg yeneen dix teg ci muy cent gëlëm ñu wantalaat bu nu dee bi dal ab mooy dal gëlëm yi ci la ñu wantalaat ku génne at bu nu dee yi dal gëlëm yi ñu génnaan bu dal gëlëm yi ci leen xam ne yàlla muccal na Abdullahi kon nag tey gëlëm yi la ñuy rey ci lañ reyee gëlëm yi booba mboolem rab lekk nga ci rab yi nekk ci àll bi dañoo lekk ci yàpp ba doy nit ñi lekk ci gaynde yi lekk ci bukki yi lekk ci muus yi lu nekk lekk na ci mooy ñot gi nga xam ne moom lañ jotee Abdoulaye Cheikh Seydil Hadji Malick ne danaa ko loolu weesoo nag Abdou Moutalib daa téye Abdoulaye ci loxoom pour ñaane la ko soxna fan la jëm ila fatati z ila fatati zuhrata ci kem zuhrata ga zaatin ba ji kay baramu cadda nga wala kiraame ak kiraame Abdoulaye Amina jigéen ju yiw la jigéen si biis la jigéen ju baax la jigéen ju xam boppam la ndax yëgoon na yàlla moo jël moo jël wéy juru rasulillahi di leen tànn di leen ci biir góor ñi waaye tamit di leen tànn ci biir jigéen ñi ba yonent yàlla Muhammad ñëw mel ni mu mel moo tax ku wax ne Mustafa la bàyyi wala gënu la yaay wala gënu la maam da ngaa xamul ndax sayyiduna Muhammad alayhi salaam alquran da ko taqallubuka fi fi jibaay saajidiina yow sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañoo di walbatiku ci ay ndiggal maam yoo xam ne ñu sujjootal yàlla subhaanahu wa taala ba nga ñëw yow rasulillahi alayhi salaam yonent bi ñu gën baay rasulillahi ñu gën yaay moo ñu gën lépp Muhammad alayhi soxna mooy kan muy Amina Amina nekk jigéen bu baax nekk jigéen service ba jamono moo fa gënoon jamono moo fa gënoon a baax ku bëgg sa doom baax dañ naan ko xoolal ca Amina ndax Amina fulla gi am ndax Adama fayda gi ah, ah, am waaye service gi mu service waaye mbaax gi nga xam ne nekk na ca Amina ndax na tazal fi damaayil kawni tuxtaaru lak al umahat wal abaab Mahamad Bouchayri ko wax na ko nee na yàlla dañu ci ni mu melokaanu muy tànnal rasulillahi umahatul ay maam wal aabaawu ay maam yu ummahaatu ay maam yu wal aabaawu ak ay baayu ay maam yu góor maanaam yàlla famille Seydina Muhammad daf koo tànn bii ak di seppi ko ba xam ne famille bii moo gën ci famille bi mu jëlee fa Seydina Muhammad ci biir famille mu tànn ci Abdullahi ci biir famille mu tànn ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mi seen kilifa kara ba ñu dem man raa imra'atan tud'a bi Fatimatin tabqi lmamaala ilayha wa hiya lam turami alxaaj Maalik nee na xam naa li xew ca yoon wax ba ñuy ñaanale Abdullahi soxna xam naa li yoon wax ñu ne ko Maodo waxal mu ne la xew yoon mooy keroog ba ñuy Abdullahi ànd ak bàyyi ñu ñaanale ko soxna romb neen benn xale bu jigéen bi ñu naan Fatima Fatima bi mu jàkkoon Abdullahi gis Abdullahi leeru Abdullahi di falatuwu ci kanamu Abdullahi léegi rasulullahi nga ci diw abdullahi ñu fanatuwu xale bi gis abdullahi bëgg abdullahi ngir leer gi nekk ci moom ndax leer bi nga xam ne moo nekk ci abdullahi te may leeru yonent bi taxoon na a soppoon abdullahi ñépp a bëggoon abdullahi ngir lan ngir leeru rasulullahi bi nga xam ne yàlla def na ko ci abdullahi abdullahi ànd ak baayam ñu war koo ñaanali soxla ñu dox ba ci yàgg Abdullahi Abu Mutalib na ko doom xaar ma ñëw xaar taxawal fii ma ñëw fii dama am wëllër bu mu fi xamoon démb sama ànd sama wëllër la xaar ma jaar fa ziar ñu continuer ci voyage Abdullahi dafa papa baax na man lay xaar bi mu demee rek benn xale bi ñaan Fatima ñëw xool abdullahi abdullahi sa lool mu xool abdullahi abdullahi sa bii sa lool mu xool abdullahi rek sopp abdullahi ndax leer rasulillahi bi nga xam ne mu ngi ci yaram abdullahi bi fanetu loolu ko ci abdullahi mu bëgg abdullahi ci sens mu ne ko yow yaay ki ma déggoon màkk ñu reyal ko sans jërëm yi pour sauver bakkanam abdullahi ne ko waa mën a xale bi doon bëgg dama bëgg maag yow ñu ànd wéet maag yow jaxasoo maanaam sëy su ko defee ma jox la cent gëlëm cent gëlëm yooyu nga xam moom lañ la rayaloon pour njotee ko sa bakkan pour muccal sa bakkan ma jox la cent léegi nii boo nangoo maag yow ndax leeru yonent ñu gis Abdullahi na ko amal xaraamu fan mu naatu duunahu def lu xaraam dee moom moo ko gënal te góor nag dafay aar daram ci côté bu ne ci wàllu wax ci wàllu lépp dafay aar daram li nga wax dee wuuteeku moom moo ko gënal waaye xalaatuma mooy sama ndigal wéyu xalaatuma def loo xam ne sama diine santul ko xalaatuma def loo xam ne sama ngor nanguwul ko ci loolu ci la Abdoulaye tontu ndaw sax noo ko xalaatuma ay bu doon jamono ji am na ñoo xam ne bu doon jamono ji nga ne kaay ànd ak man euh, maa ngi ñu jàdd si dugg ci néeg rek def affaire nga ba jox la cent millions def naa ko gaaw na gaaw na gaaw waaye rasulillah abdullahi da ko déedéet loolu xalaatuma ko ndax def la xaram dee wutee ma ko gën wax leen ne dem na abdullahi kunte na voyage ba ba voyage ba man ñu may ko amina bu yàlla dogal mu ànd ak amina bi mu ñibbisee rombaat ndaw si di ko tooñ naan waaye yow li ndax yaa ci ndaw si def na ko gis na gis nga instant bi jaruloo ma sax neefaree gëlëm ndax li ma doon gis ci yow di ko yëg ci yow gisuma ko toxalu na ci jigéen ju baax toxalu na ci jigéen joo xam ne kenn la ci tànnee fi muy amin loolu moo xew ñu ne ko Seexul Xaaji Maalik Abdoulaye Kër ba ba muy takk ñaata at la wa zaaka Abdoulaye Seydou man ilal xayri naafi day wa ni xami Cheikh Sidil Hadji Malick nee na Abdoulaye xam naa bis ba muy takk soxna xam naa ñaata at la am ñu ne ko alxaaj Abdoulaye Cheikh El Hadji Malick ñaata at la Abdoulaye am mu ne Abdoulaye mi ngi am dix-huit ans keroog ba muy takk Amina mooy xatuwat xaawit la del quatre waaw six boo ko boolee muy dix-huit dix-huit ans la am la Abdoulaye am keroog bi muy takk soxna waxaasa làkk na izaaru boobu la jëm na Abdoulaye Seydina kay sunu sang xabwal mi aji man ilal xayri jëm ci yiw naasi dayri may dàq lor ni xami ak mbugal ndax ki ñu war mooy rasulillahi mooy dàq lor ki ñu fi war a mooy Seydina Muhammad mooy dàq mbugal booba nag Abdoulaye mi amoon xabwal lii ma xabwal mooy dix-huit ans la ab am takk sunu yaay Amina moom nga xam ne moo ñu jural Seydina Muhammad alayhi salaatu wa leer bi nekk ci Abdoulaye Alxaaji Maalik ne leer bi nekk ci Abdoulaye il faut Abdoulaye verse ko ci foo xam ne bu set lay doon fu laab lay doon fu yiw lay doon te kenn amutoon ci jamono jooju ku gën Amina ku Amina rek amana moomu moo magasin leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax li kay sayruha sarfan len di durratihi aminata naqiyat an zaahi tuhami Abdullahi leer gi nekk ci moom daf ko bëgg a verser ci ci kat ci amina amina mooy kat amina naqiyat dafa set an zaahi tuhami ci mboolem lu ñu tuumal jigéen Amina set na ci wecc Amina tax du taxawaarukat Amina bëriñ wax Amina siisu Amina bon Amina ku baax la ku yéenoo ku service la ku bëgg yàlla ku bëgg jaamu yàlla leer googu nga xam ne mooy leeru rasuulillaahi yàlla jaarale ko ci digg Abdullahi mu war ko yóbbu ci biiru Amina mi nga xam ne moo ñu jural sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk kon Seydina Muhammad moo nu gën bàyyi Seydina Muhammad moo nu gën yaay Seydina Muhammad moo nu gën moom rasulillahi alayhi salaam kon yàlla nu yàlla defal jàmm ci barke rasulillahi alayhi salaam defal ko mbooloo koo xam ne yaa bi di Salam Vision yàlla defal la jàmm ci barke rasulillahi alayhi salaatu wa ñu nekkee ci bitim réew yàlla defal leen jàmm may leen ñu taraal ba ñëpp siyaat ci seen i ci barke rasulillahi alayhi salaam alxaaji Pape ñu ngi koy ziar sëñ Moustapha tabarakallahu alxaaj ibrahima ndaw ci itali moom tamit ñu ngi koy ziara di ko ñaanal tawfiq ak taysir ci barke yonent bi aleyhi di ko neex boobu maa koy ziara baax ak sunu xarit boobu alxaaji lamin borom talaal borom koor ñu ngi koy ziara baax tabarakallahu di ko ak Serigne si ak Serigne Babacar Sow borom mbooro di suñu xarit baax moom Serigne baax a baax a baax démb ñu ngi démb dama a jàpp maa ngi gis appel dama xawoon a jàpp moo tax di koy ziar soxna Diané Guèye Cité Fadia moom tamit ñu la suñu jigéen la ñu koy ziar bu soppi Seydina Muhammad yëpp ñu ngi leen di ziar di leen jàmm bi ak bitti.